jaahi Seydi Birahim Fall bismillahi barkeb borom tuuba ak cant ñeel na kay xadim ci kay xadim mu tey karim ma nit ma doon fi moom xadim kookaa maam Seex Ibra Fall ak cant na kay xadim ci kay xadim mu tey karim ma nit ma doon fi moom xadim kookaa maam Seex Ibra Fall baabul muriidi lamp faal borom jalaal ji ak jamaal léppam di ay may ak ngëneel jaaraama maam Seex Ibra Fall jaayante naag borom xiddam bam fay ko booleeg di gërëm mu jébbalaat ko ak fayam jaaraama maam Seex Ibra Faal ndamul muriid yi moo moom mbégum muriid yi moo moom merum mariid yi moo di moom jaaraama maam Seex Ibra Faal ndamul muriid moo di moom mbégum muriid yi moo di di moom jaaraama maam Seex Ibra Faal haddina yëg na ab cëram laaxira yëg ab cëram barsàq yëg ab cëram jaaraama maam Seex Ibra Faal waa addina ak laaxiratam ak ahlu barsaxin yitam ñoom ñépp maa yëg cëram jaaraama maam si Ibra Fall si yaare nan ko tey gërëm ci ay jëfam ak waxam ñun ñépp yëg na ndimbalam jaaraama maam si Ibra Fall si yaare nan ko tey gërëm ci ay jëfam ak waxam ñun ñépp yëg na ndimbalam jaaraama maam Cheikh Ibra Fall xam na fa ba may yu yu jomba jeex tey gën a te ñépp a mos ca yooya may jaaraama maam Cheikh Ibra Fall taxañ na léppam jébbale tayit du deñ di jébbale lu man di am du xaajale jaaraama maam Seex Ibra Faal taxañ na léppam jébbale tayit du deñ di jébbale lu man di am du xaajale jaaraama maam Seex Ibra Faal yaatal na xéewal ya fa ci jàpp jaam jaaraama yaatal na xéewal ya fa daam daam moo di Ahmadul Xadiim moo ñu musal ci jàpp jaam jaaraama maam Seex Ibra Faal ku jéem a sikk ay mbiram ba faatu naaru mooy këram li gën ñu maandu tey gërëm jaaraama maam Seex Ibra Faal kuy jéem a sikk ay mbiram ba faatu naaru mooy këram li gën ñu maandu tey gërëm jaaraama maam Seex Ibra Faal lun man di dégg baa ñu gis Seex Ibra raw na kuñ di gis Bamba ko wax mu jëf ñu gis jaaraama maam Seex Ibra Faal lun man di dégg mbaa ñu gis Seex Ibra raw na kuñ di gis Bamba ko wax mu jëf ñu gis jaaraama maam Seex Ibra Faal lu man di dégg mbaa ñu gis Seex Ibra raw na ku ñu di gis Bamba ko wax mu jëf ñu gis jaaraama maam Seex Ibra Fall mooy rootukaayu kuy murit de alkukaayu kuy marit waaju ko sopp doon sahit jaaraama maam Seex Ibra Fall nandal na gaaya koy dëtëm ci géej leer ye ñuy gërëm ngir man di naa kemam du am jaaraama maam Seex Ibra Fall safal na mboolem ku mu saf ci xéewal yi ko saf te kum saful des na ko ñaf jaaraama maam si Ibra Faal xilmul yaqiini lay joxe xaqul yaqiini lay doxe xaynul yaqiini lay waxe jaaraama maam si Ibra Faal xilmul yaqiini lay joxe xaqul yaqiini lay doxe xaynul yaqiini lay waxe jaaraama maam si Ibra Faal fa ñuy fale kum fa falul du làq nguur ngir moo fal di folli yal na xëy ñu fal jaaraama maam Cheikh Ibra Fall dafa na secret masoon ba saa kun fa yekun moo sës ci Ahmadul Amin jaaraama maam Cheikh Ibra Fall xel mënta maase ci daj ko jaam ñi ko xam nan maase sant ci amam jaaraama maam xel mënta maase lay mbiram ci daj ko jaam ñi duñ ko xam nan maase sant ci amam jaaraama maam Cheikh Ibra Fall risal na yoonu tarbiya bayoo ko leeri tasfiya te xañ na yoonu tarxiya jaaraama maam Seex Ibra Faal santati naa ko fàww nag ngir moom a jagleel xel mu baa ju ko way guddeeg bëccëg jaaraama maam Seex Ibra Faal tuubati naa te yeesluwaat te yeesalaat feddiliwaat saak laxa saay te dolliwaat saak sant maam Seex Ibra Faal safasu yow nag ñu waxal Seex Ibra mi la daa doxal mu def sunuy xol di saxal jaaraama maam Seex Ibra Faal xam naa ni sax ci moo ñu war yëg naa ni sax ci moo ñu war te waaju siisu ñàkk ngor jaaraama maam Seex Ibra Faal sa mbax lu leen murid yi le ci géeju sant buur bi le moo tee ñu ñàkk dàmmale jaaraama maam Seex Ibra Faal sa mbax lu leen murid yi le ci géeju sant buur bi le moo tee ñu ñàkk dàmmale jaaraama maam Seex Ibra Faal su doon lu waay mu am duutuma deñ di way mbiram te duma génni ndigalam jaaraama maam Seex Ibra Faal xaaral ma xat mu sama way muhammadun sey moo way ngir sant lamp ma ko may jaaraama maam Seex Ibra Faal xaaral ma xat mu way muhammadun sey moo way ngir sant lamp ma ko may jaaraama maam Seex Ibra Faal sukran li Seex Ibra Faal jaaraama maam maam Seex Ibra Faal jaaraama maam Seex Ibra Faal subhaana yasifuun wa salaamun alal muridiin walhamdulillahi rabbil aalamiin listening.